million na appartement boo yoree xaalis seet si ma yaa xam looy liggéey doonal taxi man li ngay ma maa ko yor ñëwal def ci man appartement bi foo ju fay courant bi yombee leen ni gaañ yi bokku ci réglé kai. Yo, yow bàyyi def li def mbaaraan bi du solution Yo, bàyyi li def li def dama wuti beneen solution Yo, bàyyi li def tay dama indi sama juroomi deug yu ma nara yow yow yu ma nara yu ma nara ne sarax yow nga ko yow yow sas euh, bàjjen yow man daal dañ ne la man ab poupée laa wala man ab mala laa wala man yow yow yow yow yow bàjjen man man dama doonul dara ci réew mi wala qu'est-ce qu'il yow ñëpp xam nañ sama diggante ak yow sama mbëggeel ak yow yow bàjjen lu nekk daj naa ko lu nekk dégg naa ko di accepté rek di accepté rek muy métti ma bës rek muy métti ah lu nekk ma engagé ko ndax yow ba ñëpp nag ba ñëpp déggatuma kenn déggatuma ma sàmb déggatuma ma dem lu ma waay wax ci yow sax donte ne dëgg la ma xam ne dégg la sax dama koy fënatal ndax lan ndax sama bëggeel ak yow yow amoo looy def loolu di ma jëndee Diop loolu nag moom loolu sax loolu garaawul waaye man li ma gën a métti li ma gën a métti gën maa euh, euh, euh, gën ma gën gën a gën a dagg sama xol may wax nga fat Diop Fall sa yow yow bàjjen yaa bon eh. yow bàjjen yow yow yow eh. yow tiima disil eh, eh tiima disil laa wax da ngay noppi da noppi ba ma wax ba pare man fi mu ne nii eh jël naa sama engagement de waaye man du ma noppi nga may tuumaale li ma lay wax man jël naa samay engagement ci yow waaw kii yow kaful de yow yow bala nga xamne kaf na naam kafum bàyyil ba ma terminer eh djel na samay engagement ci yow lama don xol diko bañ bàjjen xoolatuma ko bañatuma ko xam nga nak leg lan la bëgg moy sama digënté ak yow dama bëgg mu jeex tak ci fini eh, na neex dama bëgg yow eh yow xam nga ne eh. buma neela day jeex day jeex tay yow boma ma gisaatee boo yow yow yow ma toogaat ci sawet di wax di wax. <laughs> yaa ngi ma wooyee daa ngeen daa ngeen sax léegi bëebuñ lan may wooyee yow suñ ma gisaatee ma sukkaat ci yow nan ma wooyee Adja Nagoy Diop ma ca Milan <laughs> booboo gën a de nan ma woowee Adja Nagoy Diop ne ma dootuñ déggati dërëm gaaj Adja Nagoy Diop borom Milan waa kii de Adja Nagoy Diop borom Milan borom social bi nan ma ko woowee man. maa wax lii yow da nga romb ci Adja Nagoy Diop yow. ah yow. yow waxuma la woowee la Adja Nagoy Diop. yow di nga dégg lu raw Adja Nogaye Diop yow. ku ku kuy tax ma dégg koy yow man mii. waay na réew. ma sax. yow yow yow de da jàppoon ne man munu ma laa ba. yow da ngaa jàppoon ne Diop fii. yow kat. yow eh loolu test la woon. loolu test la ma lay may chance bii nag mooy termine. bii mooy sa fini jeex na tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk. yow de waxuma la Adja Nogoy Diop Adja Kumba Diop sax di ko dégg. Adja Kumba wala Adja Kumba Taal. baax na ba nu yegg foofu. yaw ba nu yegg foofu yow yaay ki koy dégg yow. yow yaay ñëwaat fii raam. ku lay raamal yow yow. te lenn xamal naa la ko tuumaal bi na dakk man lenn laa man muy wax boo mënee nga gëm soo mënu sax affaire la li jëntewuma sax ki koy jàpp looy bàyyi dangaa bàyyi. bàyyi naa waaw fekk nga ma mën ma bala bu yàgg. ah. waaw nam mu ca yàbbu ca. kon ku ma ba ma mën mii ma jël. yaa wax loolu bàjjal doo ci rëcc lay lu toll ne tarfatal ay lan laay rëcc ci yow yow Sacha gis nga ma ci kaw ba ci suuf yow yow yow bàjjal naa ma Sacha de ah? ma bàyyi mu may tudde dama nga toog waay yow di nga di nga màtt sa baaraam wi cax kii dafa neex yow di nga toog bu màtt sa yow yaay kii raam nag xam nga maa doon raam bii yoon yow yaay kii jóge nële waxuma neex na yow yaay jóge nee di raam Adja Nogay Diop tok di la di la xàllal naan la ni ngay ram far force di ram ba ci sama souf tang ma jéggal la nga yow wax ji yeggagun fo yow di nga reccu yow li nga don def kumba tàkko ngay deg yow wa wa kon baax na xoola boo mënee nga gem so mu mënul je m'en fous eh, gemuma wa sa affaire la gemuma tay gemuma euleuk sa affaire la baat bi nga don tiaga bi ya ma gëna don doon yow yow yow war nga ru sax di fat jiw yow yow yow nekk nekk yow ci kër gi nga nekk di siwbaate kon na xolam di korobaat yaa mën a fen man danaa am ku la gën am ku la gën a rafet ku la gën a mool ku la gën a naaj ku la gën a doon taay fin ku la gën a xees ku la gën a baax ku la gën a yaru ku la gën a am diine loolu yàlla dina ma ko jox ci kàttanu yàlla ak mbaaxam caga bi nga doon doo nitu dara boo ma waxatee sa siri boo ma waxatee sa siri ngara ma toj sa lu bon léegi léegi

boo yoree toll foo xam ni dangay xam ni lii moo mën a nekk nga def ko lii mënta nekk nga def ko ma bëgg lillaahi nga def te yàlla tax xool sama diggante ak yow ndax man sa bàjjen dama ko bëgg sama biir xol te moom it bañu ma de dërëm gaajoo fa dem nettali nettali yàq sama der wax ju ñaaw ju ne mu wax xam ma nag nu mu wëlbatee carte gi noonu ba ndaw si daal ni bëggatuma kee la bëgg mais xam nga dërëm gaajoo kanamam gi mel ni fataay bu yàqu xam na kii bu ndaw si jongam moom ju mel ni bu nee da koo topp am na lu xew fen na ba yóbbu samay wax walla jàpp na ndaw si ci gàllaay mu bëgg na nga jàppale ma waxtaan na la sa bàññeen je l'aime dama ko bëgg dimbali ma ci rek loo ci wax ci lu baax doy dégg naa li nga wax mais nag bu ñuy wax rek te yàlla tax loolu moom très sincèrement du ma ci mën a wax xam nga tax parce que ay kilifa ngeen ma nit magum jëmm laa doo fi nekk ak dërëm dërëm jiitu la fi xamoo lu mu séq ak bàjjan nga bëgg a dugg ci diggante bi ba indi fi coow lu rëy ba indi problème seen diggante yéen ñett ñëpp tey nga ñëw fii ne naa la jubaleeg bàjjan te yàgg bàjjan geer ngeen fii keroog fii laa toog ngaan bàjjan génneel na la paakaak yu kenn xamul man yëpp sama yoon newu ci tey nga bëgg ñëw fii ne naa la jubaleeg xam nga ne loolu mënut a nekk. naa nekk nu muy nekkee. yow yaa koy dox. nan laa koy doxee jub. damyee la rek pion yi ma lay jox boo ko tegee ci grand ray gi ndaw si du xam fu muy jaar ne ko seet naa ba xam ni yàgg sa xarit bii seen xuloo yu metti yeeg jàppante yeeg yëpp mbëggeel la rek xuloo mooy jaf ka mbëggeel dafa dina jàpp ak jaar nga ci nga fexe ba ni ko nag essayer lañ moom rek xool ba xam mais na essayer ak man rek ñu bokk toogu waxtaan ma ko li ma yëg li na ci man man ne kon ba tey manoon la am nañ ay doom ndax man defuma ay ngoro man dama koy takk ci farata yàlla ak sunnas Muhammad sëy laa koy proposé sëy te nag man maay neexal nii rek ndaw si lee mu mën a pause de neuf minutes bu ko ci tegee mën a pause. Diop ba ma lay wax rek. Diop yaa war a change Diop yow yaa war xam sa bopp bàyyi caaxaan yi Diop ku la wax ni bàyyi li ngay def nii da lay nax Diop mag nga dootoo xale Diop il faut que tu arrêtes nga jéem a changer jéem a xool sa bopp. yow nag sa magum bopp nga yow yaay mën a dem lijjën fekkee da koo bëgg nga dem lijjënte ak bàjjen bu fekkee mënta ne nga dem fekk xool leneen lu mën a nekk nga dem gérer foofu comme li nga bëgg jàppee sa àdduna mais man maa mënul naan bàjjen Diop Fall Diop Fall dërëm dërëm bàjjen du ma ko loolu yóbbante la de kenn yónnewu la yóbbante la gis nga nag yow guerre bi ngay woon ni ñi dinañ la ci wuy ji amaloo kenn njariñ nag na leer amaloo kenn njariñ yow neexul ba neexul mais yow amaloo kenn njariñ nit ñi dañuy sonn ci say mbir mais sonnoo ci kenn te bis bu la yàlla nattoo yàgg sa jabar ji. ba ngeen réeroo. wax jooju xam nga ni moom moom am na borom. ba ngeen am. war nga toog fii naa man sonn ma ci kenn. ci kan nga sonn. wax ji man moom moom. lan nga ma kan moom moom wax ji. Ah, yow nga toog ma lay wax. <laughs> yow xam nga ni waxoon kan laay wax. man man tax nga naan man du sonn ci kenn. yow sonn nit ñi sonn. maa ngi nii di sonn ci yow. te nangoo sonn ci ma. te yow lu tax bu buñ la waxee dara foog nga wëlbati ko keneen. Ah, te yow yaa toog yow la ñuy wax yow. dafa ne sa ndaw si maara day taali bu ngeen jàppante woon ba mu yenu ay bagages sam di dajale nan day dem maay wuti oto gaare gaare wa ñeme yàlla. billaahi yaa mën fen lan la la waxoon ci ay insulte. dara. moom. dara yaa ngi seq ma salaa pataki ko fi yaa mën mu fenaloon ba mu nar a def. nga fàtte yow. nga dem dëkk ba ñu dàqal fa nga dellu si. waaw da nga fàtte. Ah. nga ni yow bu bu demee yow yaa koy jëli yow yow yow mi ma ko door a xañ. waaw. gis nga gis nga bu ma ko xam nga toujours dama koy tekki di tekki mais gis nga bu ma ko takkee ba xëcc ko fi gis nga bu ma la ko sabañee. kii li na mu tudd la pataaki. <laughs> déedéet taakay bàyyam la tudd. muy taakay bàyyam li ñuy toog waaw wuy ma nag bàyyi kaf yi nag dimbali ma ci sa bàjjen bëgg naa ko. bëgg nga waaw. waaw ni mu ko bëgg a def soxna. ni ma ko bëgg def soxna vraiment man ndaw si damay tëdd di ko xalaat di gént di ko xalaat di tëdd di ko xalaat dama ko xalaat xalaat xalaat ba man xawma lan man xawma ma lan la. man yor na appartement yoré xaliss xaalis settement ya xam looy liggéey doonal taxi man li ngay wër ma ko yor def ci man appartement bi boo ju fay ko waaye xam nga lan laa la yëgal waxal li ngay wax bu ma gersuloo fële bu ma gersuloo fële man awma sa jot gis nga nii damay doog a sangu noppalu relax bu ma déranger ngir yàlla rek. yow ku la déranger. Ah, non si boobu nga xam ah li ma la war a wax ah, nag. man li ma la war a wax bariwul damaa dépassé lu bari bàyyi lu bari ndax coow amul solo. te man nag nit buy xëccoog man dara su ma ko gënee bëgg ma bakkook moom a ah. waa man man man man man alaaj dërëm gaaj lu nit di xëccoog man su ma jisee ne moo ma ko gën a bëgg ma bakkook moom te noppalu ta jàpp ci yàlla bul waxati sa bopp alaaji dama màgg bul waxati sa bopp alaaji li may man ma war a wax alaaji Amet Diop Fall mu bëgg foo dem man ma ma man yow foo dem man dem naa umra di yow yaa umra ji man dem naa umra yow mali weesu woo yow bu yow Bamako gii weesu woo ko. yow munoo bàyyi di tuddee sa bopp El Hadj Amadou Diop Fall Mbëkk ah di wër ci dëkk bi di ji foo dem ne El Hadj Amadou Diop Fall Mbëkk ñépp foog ne dem nga màkk te Bamako weesu woo man dem naa Umra. yow ah Umra nga dem. waa kër gi lu tax tey ji lu ma ñaan mu nangu lu tax ñëpp jox ma bopp. lu tax ñëpp ànd ak man lu tax ñëpp ni ma yow la nee na buñ ko waxee man la eh, buñ ko waxul man la te joxuñ yi dinaa ci mës a luqi. Ah. man loolu li ma nekk alaaji ba tey yow. yow ray da la kon. xam nga yow luma metti yow moy lol. personnalité. waaye mo waxati Pas amo personnalité amo dignité parce que yow bo amone personnalité do nek ci bir kër gi di lëmbalal ay jigen jeeg bu toll ne yow ngay lëmbalal ay jigen ci bir kër gi man nak samay wax bariwul bàjjan a ngi nonu yaangi nonu noonu lepp man ma deseeg yàlla danaa la xamal leen de. songu de. lende de laa xamal. bu songu de. bis boo ma ji setee ma toog ak bàjjen di ko wax waxi bëggante bis boo ma gisante may communiquer ak bàjjen wala ma toog ak moom di wax kasas beneen wax ju jëm ci affaire mbëggeel hmm. woowe ma Adja Nogoy Diop ma ca Milan waaw xam nga kooku jigéen ju mën góor la am jom nangu liggéey man social bëgg boppam personnalité moom macha allah ma ne woowe ma Adja Nogoy Diop ah fan yii yow da nga doon liggéey xanaa. da nga doon liggéey. liggéey mel liggéey pour. dama liggéey nga ni pour xamoo liggéey pour lan. ah xamoo waaw moo tax may laaj. loo teree liggéey. loolu jere liggéey. nan laa tere liggéey. yow tooga fii wax ma li may wax ma jël sama téléphone woo ki may liggéeyal nga dégg li ko wax yëpp ak la ma ko yëkk yëpp ak la tontu nga ni man naa dem liggéey man naa dem ñu may toroxal man kenn ma toroxal kii ne nga may toroxal ma toog xam sama bopp foofu dootuma fa dellu te yow yaa ma ni naa ko ba ba naa ak moom dara léegi nag mi ngi may xaar pour ma ñëw mu humilier ma ci place bi man duma ko may loolu ki nit fii lañ toog di nga wax mën naa ko bàyyi bàyyi naa ko liggéey nag yàllaa ko yor maa ngi lijjanti feneen comme leen ni mu ñëwee ba ma fekk ma am ko fi noonu laay wutigee leneen ba am ko parce que sama diggante ak yow jàmm laa ci bëgg ak salaam bu du woon ndaw si nag dinaa liggéey te du yow jigéen yaa may tere ma liggéey mais comme dafa am jigen bu dugg ci sama diggante ak liggéey ak yow damay préférer éviter lolu ndax jigen joju buguma ben problème nak si je comprends bien promotion canapé lañ la défalo <laughs> loolu da laa iri dor la jox la liggéey <laughs> c'est honte c'est honte xool yow <laughs> man ñu na la ku ñuy iri diko diko def yoy ngay wax man ah su dé liggéey yow yow genn bi mo jitu liggéey wala liggéey mo jitu genn yow ñak nga fayda yow mi yow mi sa jabar sa jëkër bàyyi la fi dem <coughs> ah dem wuti benen jigen nga ne da ko def li def li kon yow ñak nga fayda yow lolay sa wax. la iri def la promotion karate hein ah bu la fan jox la liggéey parce que su fekkoon ndaw si. yàlla rek moo tax mu wutal la liggéey bi peut-être après yéen ñaar ngeen génn sax boobaa soo leen bàyyante liggéey ba dafay des. xam nga yow xam yow yow yow fi mu toll nii loolu neex nga xamoo nu ma def ba ànd ak ndaw bi xamoo nu ma waa waaw bu buñ ma iree ci ci liñ ma iree noonu di ma fay par mois ci laa lay dundalee ñàkk nga fayda yow it de nga lekk ba di faraat sa ginnaaw gi ne faraat tool nu ko neex. xaw ma dañ laa iree. waaw ah xaw ma xam nga ko ay laa nekk da ngaa yor carte. <laughs> ay laa nekk da ngaa gis nga Ah, yow bul ma wax ku ñu lay tudde Adja Nogay def na teranga bu ne dëgg la waaye yow xamal lu lay wooye baabun boo ma waxatee loolu lañ lay wooye ma toj sa lu bon léegi man xeexuma eh, eh, loolu soo ma ko waxaatee ma toj sa bon léegi eh, waaye am na seulement wala drapeau blanc waaw yow loolu nga xam man blanc rek laa maye fi kan moo maye blanc yow soo maye woon blanc waaw ba nga fekk sama jeeg ci biir kër gi mu wóor na na maa ne ca moom ñu wax la ko mu toq ci sa nof yow ca nga waroon a woote pee yow effacé wu ba set nek wa lu tax ñu yow lu tax ñu le duma ku mën sa morom duma kon yow wote woppee gidat gidat wrat gidat waay bay tëggal lii waay bay duma ku koy tëgg ku mën sa borom duma eh. ki si gid <laughs> eh. ni duma ku lay tëggal yow mbalaxal da nga na wara na mbaq wara na mbaq mbanaan sa gidda mbasat gidda kii ki sa gidda boobu fi talmat ne ko nan ki sa ki sa gid ñu jek jek waaj ba arab tan taxé sa giis ma waay tay ma la ñëw fess na yek na yegg tey baa toj sa ma ne na si yow yaa ñàkk jom ndaw si pare nga si pare nga ci te kat boo matul nii nii sa rek dugal la fii la lay dugal lay <laughs> dugal sa li fat Yo ya ñàkk fayda yaa ñàkk takat de lëmbal rek waa kër gi nee na du lembal li uppaajam lëmbal fee lan ko defee ca suuf yow kat nga yow boo to boo toogee comme lëmba rek kay def. yaa waxoon doo tudd turam de te tudd nga. kan man maa la wax du ba tudd turam dama ne la dootuma toog a teg moom di wax ci leneen lu jëm ci waxi mbëggeel. billaay eh, su ma ko defatee woome Adja Nogoy Diop. Hmm. yow xanaa déggoo li ma la. yow ba yow mi yow mii. lii kay man maa leen ko wax. yow est-ce que ça va. waaw ah, ça va xam nga lu ma bëgg. waaw loo bëgg nga génn kër gi. xoolal waxaat ko waxaatal lool waxaat ma loola rek. soo ma ko waxaatee ma toj sa lu bon léegi ma ne la Pero Sacco. yaa Pero Sacco. doome fu. tun saamer soo ma ko waxaate soo ma ko waxaate maa ñuus la ñuusal maa ñuus la eh ñuusal maa ñuus ñuusal yow Pero Sacco booy duma sa moro may tuuma may tuuma sobo ko waxaate sobo ko waxaate ma ñuus la. ñuusal ma ñuus la. eh ñuusal. ma ñuus la. doo ma ñuus. génn kër gi génn ma. kër fi laay toog. carte boobu ci la la jox ngay jëndal la ci or ngay tak. sa sa morom mako jox ya ñak fayda. Ah, ñak ma fay ma ngi diñ tok ndax bañ xaas ba muy ñew pour ma xaas bu lew pour ma sama jëkkër. ah lew na ndax dama ko liggéey ñak dang ko nga xaalis bu càggatu la da ngaa yëg nii xale bi da laa bàyyi amatoo fi tu dem liggéey yow kay promotion canal bi war a dugaloon foofu ci entreprise bi jërëjëf xam ni daal jàmm sama diggante ak yow moo gënal comme yéen nag xamu leen xamu leen bëgg toujours yéen a chercher le parce que ba ni dootuma bëgg am jàmm sama diggante ak yow. am jàmm soo da lay bëgg am jàmm sama diggante ak yow la comprendre comme ça buma ma génnee fu ma mën dem sa xel dal buma ñëw ñëwee du ma am ben problème ak yow du leneen. entraînement sax dem football sax mën nga cee doxaan affaire yi amul ay xel yu dal amul heure hmm. amul matin amul midi amul soir heure bo goor bëggé génn doxaan day génn doxaan yow nak problème toujours da ngay chercher problème ba problème am après nga rocceeku di def semblant di def le jeu bes ding ko mësa def nitu lakalé lu leer la lay wax yaa ngi foowee loo xamante ne nii di nga mësa def tek sa loxo mu lak wala bëss ma dugg fenn nga bëgg ma genn fa mu teul waaw. yaa ngi caaxaan. Eh, man alal mboro la jappé rek comme yaa def sa bop alal mbooloo man alal mbooloo laa jàppee rek dëgg alal mbooloo nga ma jappé ah wa nak kon da ñak nga fayda. ñàkk fayda ah man damay sété yalla tax lay man gis man fi jëlé de mana misi itu ya tax de. kon lan ini problem ada à chaque ada ci ay détails. dama liggéey lagi. ni dama liggéey. ndax ka ma doon génn dañoo bàyyante. waaw avant bi Ini one problem. Wah, filo ne ba tengah tak saya beras say Wah, pas waaw parce que am loolu eh mana les menaces ne avec moi. menace est-ce que doo dégg. menace ak chantage du ya ak man. tout temps yaay def yaay set si man yaa xam looy liggéey doonal taxi man li ngay war maa ko yor ñëwal def ci man appartement bi faw ñu fay courant bi yombee ni gaañ yi bokku ci ñi réglé kaay yi yow bàyyi li ngay def li ngay def mbaaraan bi du solution Yo bàyyi li ngay def li ngay def dama wuti beneen solution Yo bàyyi li ngay def li ngay def Yo baile